Kona la euh, porte-parole des jeunes lutteurs donc may rebondir rek euh, fi gars yi fi gars yu daanelee ne leen maa ngi féliciter assistance bi encore une fois di rafetlu kàddu yi fi jib kàddu yëpp kàddu dénonciation la boroom gémmiñ guy naaj peut-être du wax jàmm moo tax ñun sax waroon na noo gën a mer nii waaye xëy na euh, discipline ak yar buñ ñu yaree moo tax lu bëri luñ ko mën te nag nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu moo tax ñu ne nañ njëkkee waxtaan ndax tey avec la magie de la technologie mën nga toog fii nga wax li ngay wax Macky Sall toog biir palais mu dégg sa jooy kon donc suñu jooy lii ñuy wax dañoo bëgg autorités yi dégg ko jël si ay mesures bala avant qu'il soit trop tard parce que du ay wax kese après dañ poser ay actes pour ma wax leen nag euh, ma bëgg a expliquer historique gu ñun suñu taxawaay ñun jékkee-jékki wuñu ak féeteelu ne dañuy créer association non non non man mii di wax ak yéen képp ku nekk si monde làmb xam nga ni kona il était actif un membre de l' association des lutteurs en activité depuis Khadim Gadiaga man ñoo ma fekk sama kër man jël si ma man Kona 2017. bi ma defee sama sortie boobu ma def dal ci kaw gestion bu nébuleuse bi CNG nekkee woon ci ci làmb ji ci la ñu ci la daanaka révolution bi démarré ma ne pour qu'il y ait innovation il faut qu'il y révolution ma nekk benn jeune lutteur boo xam ne damaa jóge si victoire bu ma neexoon toog ne man sama yoon nekk su comme gars yëpp Gris mii tey su bokkee ci xeex bi tey man maa ko ci goole aga góo mi du ma bàyyi ma fen mobile du Gris Bordeaux moo ma ne ci làmmiñam sama nopp mu ne ma konaa sa ITV laa déglu yow ak Lamine bu Lutte TV boobu Lamine sax caméra lay téye Babacar moo doon moo doon questionné man maa taal sama moto dem ba foofu. Beuz mii tey ne ma konaa est-ce que jàkkoo ni li nga wax nii ma dagg si dara ma ne ko boo si daggee dara yàlla buñ xola àjjana sax du ma alaaxira du ma la ko baal bul dagg dara tegal lépp mu ne damay ragal. mu joué si sa carrière parce que li nga wax sax mbëri mag yi ñeme wuñ te li nga wax lépp dëgg la ma ne ko comme dëgg la tegal lu ma ci fekk ma jël bu doon da nga ne ma lu ma wax du dëgg bu boobaa nga loo ci dagg mais comme dëgg la tegal ndax yàlla moom moom dëgg te dëgg moom ak ñëpp. te effectivement ni mu ko doon xalaatee noonu la demee bi ITV bi génnee effectivement bi ITV ITV bi génnee dafa def buum Gris Bordeaux moo yëkkati téléphone am woo ma ne ma booy li nga wax nii ñun mbër yu mag yi ñoo ko waroon a wax billaahi yàlla na ñëpp dugg àjjana ma dugg safara bu dee li may wax du dëgg. kii témoin la mu ne lii nii ñun mbër yu mag yi ñoo ko waroon a wax mais yow nga am courage wax ko booy tu as tout di te bis ni ki tey man maa ngi si ak combat bi jour bi ko Tafa di woo di ko dugal ci panel bi jour boobu mu ngi mel ni tey ci man ñuy ñu moog Tafa ñu nekk si oto père Tafa mu naan bis ni ki tey maa ngi seen ginnaaw te lu ngeen nekk ma nekk si bi ñu demee arène nationale bi ci kaw étage ba kon ñoom laasana ci théâtre verdure foo de duusi ba fa la Gris Bordeaux woon Alioune Sarr sàcc la. foofu la njëkk a réunion suñu première réunion Gris Bordeaux ñëw toog Ama Baldé ñëw toog mbër yëpp ñëw toog kon tey ñun dañoo te man association bi tey dugaluma ci sama bopp dañu maa ñëw fekk jël si ma taf ma si seen wet ma nekk xale bu ndaw nekk ci seen biir mais nag mbir mi du affaire u xale moo tax ñun ñii ñëpp ay ndaw lañ mais soxlawuñ magum jëmm magum xel lañ soxla ñun ñii ñëpp nañ use suñu moyen xam ne ay ndaw lañ te réew yi Sénégal ngay am ans ñu naan la xale nga Sénégal da nañu jël ndaw ñi ndaw ñi nañu jël seen responsabilité soo Messi Messi benn at la ma magee man te il est milliardaire multimilliardaire ñun dañoo war a gëm ni ay ndaw lañ te avenir mais boo ba nekk ma nga am xaalis donc mais àdduna xaalis bi du neex si yow xale moo war a am xaalis kon xale moo war a gérer xale moo war a gëm boppam kon tey taxawaay bi ñu am ci association des lutteurs en activité bi ñu demee ba gis ni Gris Bordeaux mii fi muy teg tànkam du foofu Khadim Gadiaga moo démissionné dama leen di wax rek pour yéen ñiy questionné ngeen xam ne ñun fetteelu wuñu dañoo toppee waaye ñi ñu topp bañ demee ba gis ni ñoom li ñu tax a jóg ñun taxul leen jóg seen seen intérêt la dañ leen faa bàyyi ne ñukk tey ku jàkkaarloog Matar Ba wax ak moom dëgg man mii mobile junj na ko bi Khadim Gadiaga ñëwee démissionné Gris Bordeaux moo ñëw taxaw ñun ñu proposé ko. man bokk naa wallahi kii ngi nii bokk naa ci ñu ko doon campagnal pour mu jiite parce que am na sax ñu taxaw ne Kona moo war a nekk président ku mel ni Pape Sène tey mu ngi États-Unis du ma bàyyi ma fen dugg ne Kona mii moo war a nekk président man gën ci làmb Gris Bordeaux nekk président moo gën ci làmb agogo ñu ne du ma bàyyi ma fen ne ma lu tax agogo mi sax taxawoon ne dafa bëgg a nekk président bokk naa ci ñu ko baab ci suuf ne moo ñu amalu njëriñ làmb dox te Gris doo nekk président moo gënoon am profil bi parce que Khadim Gadiaga dañ ko daan xeeb CNG da ka daan xeeb naan dafa gëj a bëre il est inactif depuis 2012 bëreewul du mbëri politicien la waxuñoo ak moom. loolu yëpp daf ñu doon porte préjudice te teguñu ko fenn Khadim ah. Gadiaga mbër la te moo jiite mbër yi dañu war a wax ak moom mais comme tooñ bi ñu yàggee injustice bi CNG yàgg a def nanguwuñ de wax ak Khadim Gadiaga man nag pour ñu contourner fee boobu nañu jiital Gris Bordeaux il a le beau profil doone ñetti mbër te doo ko tudd kon donc kooku suñu jiitee tey association bi dina am dayo bi nga xam ne moom lañ bëggoon mais loolu vision la tey ñun kon duñ ko duñ ko jiital ba pare campagnal ko ba nit ñi jiital ko ñu wëlbati ko di ko xeex amul sens kon dañoo gis ni doxalinam baaxul nu mu ko doxalee du noonu ñu taxaw fustige ko ñu gis ni moom mu ngi dem ci plateau yi di dem ci autorité yi naan président de lutteurs te deful benn acte bu jëmale làmb kanam ñu koy gis ñu koy invité ci télé yi muy privilégié wu ci opportunité ma parce que président des lutteurs du Sénégal kooku du caaxaan président des lutteurs du Sénégal kooku du caaxaan kon ba mu demee di ba mu demee ba ñu jox ko ko kon war na am taxawaay bi ñu demee ba gis ni lu mu dox Maodo mën na ma seede magam rakam man ko Gris de ñun ànduñu si li def. am am na benn jour Agogo mii nii moo taxaw ci biir groupe bi ne ne ko Gris laa soxla ñëwal parce que li ñu waxoon defoo si dara xamal la wax Agogo. Agogo man du ma wax ak yow am na ñoo xamante ne nii dañuy toppaate te yow ci ñooñu nga bokk man maa dugg man ko naa man ci biir groupe bi ne ko amul kenn bu mag bu ñemee wax Gris Bordeaux li nga wax tegoo ko ci yoon. man maa dugg ci biir groupe bi taxawal kii ne ko kii bu bu la gënul gënoo ko te fi ngeen teg gëneel du foofu kii dafa bokk ci ñi la jiite kon bu la laajee da ko war a tontu kon ñun on est là pour défendre l'injustice buñ demee ba mënuñu ànd ak yow ci dëgg dañ la fay bàyyi ne ñukk tey Gris Bordeaux tey xëcc na ma teg ma ci wetam tey dëgg moo tax man ak moom ñu tàggoo bu sañoon ba tey maa ngi si wetam mais ànduma ak nit ci lu dul dëgg parce que man li ma am walaaw yax si mu ko mi lan naas li yàlla moo ma koy defal maa ngi ni 2017 ba tey bëréewu ma yàlla may suturaal kenn du ma gis di ma yërëm yéen ñi ñëpp loolu laa bëgg a xamal gis nga yàlla deful benn mbir rek ne sa wërsëg si lii la nekk wallahi su ngeen gëmee ni yàlla am na beneen yàpp bu dul keccax wallahi li a ngi gëm ni feeg yéen a ngi gëm feeg yéen a ngi gëm ni su ngeen sibooruwul su ngeen dunguruwul su ngeen su ngeen toppul ay nit ba jaay seen ngor du ngeen am lu ngeen bëgg wallahi yàlla dina leen bàyyi kooku te du ngeen mës am lu ngeen bëgg te ñun bëri loolu moo ñu daal Youssou Ndour way na ko yu Ndour nee na boo toppee nit foog ni yow mooy sa mooy mooy sa wërsëg yàlla bàyyi la ak moom seetaan la te ñun mbëru làmb yi balaa ñuy wax lan moo tax nit ñi ñu teg lu ñuy teg nañu xool ñun ban taxawaay lañu am ci société bi. nañu xool ñun bañ taxawaay lañ am ci biir monde làmb bi ñu nekk lu tax ñun nous sommes irrespectueux lu tax ñun nit ñi respecté wuñ ñu ñun ñoo war a xool lan moo tax nit ñi respecté wuñ ñu avant ñuy nekk di victimiser wu dañoo war a xool ñoo responsabilité est-ce que ñun jël nañ ko lan moo waral ñu wekk ki nga xam ne mooy lamin mi mujjee ñëw yoolu microom ñu jox ko wekk jox ko responsabilité yow mbër mi nga xam ne yaa ko jiitu salaam bu juróomi at soo ñëwee ñu ñu doye dal lu tax loolu uure ni mu la gisee la lay ëwalee kon donc doomu aadama xat fakka kab la bi sa bi sëñ Tuubaa wax ci ci maayam nañ nañ nañ tekki jëng yi il faut briser les chaînes nañu tekki jëng yi ñun ñëpp ay jullit lañ seule la lutte libère seule la lutte libère ki xeexul du ku xeexul du am ndam mukk képp ku am ndam ci àddina képp ku am ndam ci diine képp ku am teraanga si àdduna da ngaa xeex ba am ko kon seule la lutte libère kon donc ñun bëgg nañ ñu libéré ñu waaye nañu wane li tax ñu ñu libéré parce que maa la ëpp doole toog sa kaw di la duma wàcc ma yàgg may gaañ du tax ñu baal la kon encore une fois Gris Bordeaux wekk bu rëy ba lan laa ko wax ma ne ko Gris ñun de am nañu opportunité ber suñu suñu parallèle loolu laa ko sax ma ne ko ñun mun nañoo def suñu bureau parallèle taxaw contre carré la balaa loolu nañu toog ñu waxtaan xam na la ma wax am ngeen si droit dem leen ngeen def ko wallahi yàlla na ñëpp dugg àjjana ma dugg safara pour tontu question bi ñu ne lu tax ñun demuñu jéem a tante waxtaan avant lii di xew ñun dañoo doye dal suñu bopp Maodo mu ngi vocal yi man maa ngi vocal yooyu ba tey Maodo giri deux damaa parce que Maodo moo doon dox médiation bi il est un gars intègre ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mais il est un Maodo Gris 2 il est un gars intègre li ma ko xamal laa koy seedeel nit ku baax la te nit ku dëgg la te ku seetaan ITV barki démb bi nga xam ne nit ku dëgg la mu jël xam na ni je suis un boo xam ne mën na ko apporter dal mu ne ko Konami bu mu la rëcc te Konami li muy wax na nga ko déglu da ngeen bàyyi leen xel ñoom ndaw ñi mais deful loolu mu ne ñoom am nañ droit def lu leen neex nañ dem seen yoon kon loolu moo waral lii am kon pour tontu seen question ñun féeteeluwuñu ñëwuñu ber mer ngemb dañoo gis injustice bëgg koo kaas ñu ne ñu da ngeen tuuti du ngeen dara maanaam mat maanaam maanaam yëngu-yëngu géej yàqul nelawu jën ñu bëgg leen wan ni nag ñun ñoo waral coow li ñun mbëri ndaw yi ñoo waral coow li kon encore une fois ñun féeteeluwuñu bañuñu ku ñu yilif ñi ñu yilif ñoo ñu wegul ñu ñu yilif ñoo ñu joxul cër ñi ñu wegul yilif ñoo ñu tegul fa ñu war a teg. la vue ñun tey am nañ ay prérogatives mais assise nationale am na fi pour ma wax leen yéen yéen ñi nekk si làmb am nañu xeex nañu ba def mémorandum pour ma wax leen ils sont corrompus les grands lutteurs là ñoo tardeel làmb mbëri mag yi ñoo tardeel làmb il faut dire il faut il faut appeler chat par son nom ñun def nañ mémorandum nar def conférence de presse Matar ba ne bàyyi leen li ngeen di def yëpp ngeen ñëw wuy si ma mooy bi ñuy waaj a inauguré nationale bi mobile bu ma fenee nga ne ma fen nga ñu def une mémorandum de 10 points lépp luy jafe-jafe làmb lépp lu ñu wax fii nii def nañ ko ci biir mémorandum bi benn magu Tafa nga xamante ni ministres sax moom la bindee bépp jafe-jafe ci làmb ba ci ménager bi dañ koo xeexal ñu conflit d'intérêt bii kii di wax dañ koo dugal ci point parce que tey mbër mi munul nekk manager manager munul nekk manager yor mbër ba pare dem nekk agent ou promoteur loolu conflit d'intérêt la tubaab di woowee. mu ngi mel ni tey nga ni da ngay défendre mbër mi en même temps nga bëgg a défendre intérêt promoteur bi te intérêt mbër mi mu ci biir intérêt promoteur bi intérêt promoteur bi mu ngi ci biir intérêt mbër mi. kon boo gisee manager yi di gën a suqaliku ci biir làmb parce que dañoo jël ñaari intérêt di ko téye. mooy mbër mi mooy victime bi mbër mi moo siy perte parce que tey Abdoulaye Ndiaye par exemple bu fekkee mooy doxal jéey ba pare yor yor ay mbër tey buy dëgg làmp tey day day di seet intérêt jéey bu nga seet intérêt mbër yi mënul nekk il faut mu seet ci benn intérêt te moom rek moo ciy gagné promoteur du ci gagné mbër mi du ci gagné. kon encore une fois moo tax ñun ñu wéet parce que ñi nga xam ne ñoo ñu waroon défendre suñu intérêt dañoo am yeneen intérêt yu ñuy défendre te loolu conflit d'intérêt la ko tubaab bi tuddee soit que da ngay dem nekki agent promoteur défendre intérêt promoteur wala nga ñëw nekk euh, euh, manager défendre intérêt mbër mi ñaar yooyu moo mën a am mais mënoo jouir les deux fonctions à la fois kon donc li tardé lamb loolu ci la bokk te ñun dañoo xam ne ñu ay dof on réfléchit gars yi nag monde lamb bëgguñu ko yeewu man bu loolu la moom monde làmb bëgguñu ku yeewu te ñun ñoo bay bañ loolu maanaam nañu bañ ni ñun dañoo yeewu nañu bañ ni buñ bàyyi dof doflu toog naa ci ànd barki alxuraan maa mais sur le saint coran mbër doful man maa waat loolu mais ñun ñooy bëgg di nekk benn citoyen de arrière plan pour am lu ñu bëgg loolu dafa jeex layam layam ak yërëm tëlu dara si àdduna bi bu ngeen yaakaaree ni seen doole ji ngeen yor naan da ngeen di layam layam ci koo xamante ne matul 80 kilos pour leen koo nax yéen ay pour loolu moom pour ma wax loolu pour ma rebondir ci Matar Ba bi ñu defee 10 points ñun ñu doon taxaw ci biir group bi Boy ñaa dañ koo woo pour ma wax la rek gars yi ñun li tax ñu fétteelu ñun xam nañ ko. Boy Niang bi mu demee ci inauguration ba ànd ak mbëru simple yi ci biir group bi dañ ko doon saaga ay ndey naan kii jaam la ñun dañoo boycotté moom daa waroon booy boycotté.

war a koo wax li nga xam ne mooy sunu jafe-jafe jour boobu man maa jël kàddu man Kona ne leen ne ko Mati monsieur le ministre Matar Ba avec tout le respect que je vous dois mooy cër bu ma la mënti jox du tee dinaa la wax jafe-jafe mbëri looloo nga woo ñu fi. avec tout le respect que je vous du tee dinaa la wax ni mbëri yi nañ surtout mbëri yu ndaw ndax loolu moo tax nga woo ñu fi ndax danga ñoo woo pour dégg jafe-jafe mbëri kon ñii li fi wax yépp du ma ne du loolu. waaye li tax ñu woo ñu bu doon man dama fay ñëw kit Kona damay ñëw indaale xalam ak bongo ndax ay lawbee ma yar waxal la lu la neex nga jox ma ma yóbbu sama kër mais loolu indiwuñ fi ndax mbooloo ñoo ñu jox seen kàddu te ñooñu war a dégg seen sa comme ñoom yàggu ñoo dégg lu ñu leen di wax dëgg surtout xale mais il a failli mu ne nañ ma génnee si biiti parce que man ba pare li ma gën a metti ma déploré ko mooy ñun ba ñuy dugg si bureau Matar Ba monsieur le ministre Matar Ba dañ na mbër yi bu kenn dugal portable mooy wane ne manque de confiance moo tax nañu nañu amaat respect ci suñu bopp ndax nit ñi respecté ñu. dañ na benn mbër bu mu dugal portable am ñu jàpp ni xëy na loolu la ñun ñëpp ñu bàyyi suñu portable portable ci secrétariat bi dugg bi ñu duggee ba ci biir ñu gis ay communicateur communicateur traditionnel yor seeni portable di manipuler. ñun mbër yi nañ ñoo téye ne suñu portable du dugg léegi ma jàngat situation boobu ma xam ne loolu xeebaate la ma xam ne loolu tuutalaa la et manque de confiance la parce que ñun amuñu respect suñu duggee ci biir mbooloo sax mën nañ faa nekk di filmer kon ñun dañoo ba tey joxuñu cër te nit ki bépp bu la nawloowul mënu laa jiite man ma déploré loolu mais nag dalu ma ci kaw ministre bi de suñu bopp laa wax ma ne ñun bëri nañ xoolaat suñu boo gisee ñii ñëpp ñu bàyyi leen ñu dugal seen portable ñun ñu teeñu ci biti am na ba tey beneen situation bu ñuy xoolee am na beneen ba tey benn manque de respect bu am kon tey nañu xoolaat loolu mais ministre bi mënatul dégg loolu bi ñu jugee ne day wax Akon moo jug fëgg taabal yi ne Kona li mu wax dëgg moo ñu fi indi yéen ñëpp li ngeen wax li loolu indiwuñ fi te mbëri ñu yónni bu ñu yëgee ni li ngeen fi wax xaalis lañ leen jox loo xam ne 500000 la quoi une somme miette 500000 lañ leen jox 500000 jour boobu man maay wax ak yéen parce que tey bugguma ñu jékki-jékki rek foog na ñun dañoo jékki-jékki rek mer nii toog di wax. dañoo dund ay injustice ak mbër yooyu ñuy woowee mbëri mag yi ak mbër yooyu ñuy woowee ay VIP ñu ne ay autorité lañ ji Ribordo jiite leen. kon ñooñu tey suñu demee ba gisatuñ suñu bopp parce que nit ki boo koy jiite la lay nawloo tey jikko yooyu ñu làmboo ñun bugguñu ko jikko yooyu nawloowuñ ko te jikko yooyu amul kenn ku mu amal intérêt bu dul ñoom ñooñu kon loolu moo waral ñu fetteelu kon tey suñu jógee di wax dañuy wax pour lu jëmale làmb kanam wax ji nag doy na man depuis 2017 maa ngi déploré bi ma naan pour qu'il y ait innovation il faut qu'il révolution boobu ñu kenn gënum gëmuma démb la Gris wax ni révolution rek moo mën a régler problème lan mooy révolution révolution du vandalisme révolution du lu bon révolution du rebelle révolution mooy kaas say droit parce que balaa coppite di am il faut mu am déclic déclic bi nag mooy kenn ku ne xam ni sama droit yaa ngi koy violer arrête parce que dama leen wax léegi ku la ëpp doole toog sa kaw di la duma wàcc ma yaa ngi may gaañ tax mu baal la luy tax mu bàyyi la il faut frapper foor te foofu lañ toll bu dalee ñu wàcc ci tali bi dinañ wàcc ci tali xeexuñoo kenn suñuy intérêt la ñuy xeexal te kenn ku ne say intérêt moo la tax a jóg moo la tax a génn sa kër ginnaaw intérêt Sénégal kenn ku ne sa intérêt bopp war na laa doy kon ñu nit dañoo jóg pour ñu bàyyi ñu xel lan moo ñu ñuy bàyyi xel mooy que bëgg nañ ñoo appauvrir élection yaa ngi ñëw bàyyi leen xel li ma leen di wax boo gisee ñu arrêté làmb ji du dara bëgg nañ ñoo xiifal mbir yi bu jub see ñu jëbbal ñu ay ngooñ jël ñu ay sécurité ñuy dóor nit ñi bàyyi leen xel loolu bind leen man maay wax ak yéen parce que nit ki boo mënte càmbar di utiliser sa xel rek nekkatoo nit. bëgg nañ ñoo appauvrir ñun mbëru làmb yi parce que ni ñu annulé làmb ji amul yéen ñii ñëpp fu ngeen ko mën a teg kenn mënu ko analyser surtout façon bi ñu ko defee. il veut nous appauvrir après ñu jox ñu ay ngooñ pour ñu ànd wàcc ak ñoom ci kaw bu ñu bëggee eh, teg injustice askan bi ñu wàcc ak ñoom ci kaw ci ànd ak ñoom di dóor askan bi te loolu du am. association des jeunes lutteurs du ñu ànd ak benn autorité ci injustice. autorité bu yaakaar ne di ñu xañ suñuy droit après nga xëcc ñu sa wet jox ñu ngooñ parce que xiifal nga ñu pour ñu ànd ak yow ci injustice duñ ko nangu xam na moo tax ñu gëm lool. parce ministre de la justice bi mu invité ñoom Gris Bordeaux seen soi-disant baalu boobu te Gris Bordeaux moo génn taxaw ne ministre bi dañ koy porter plainte kenn wax loowu ko ko moom moo ne ministre bi dañ koy porter plainte. ñëpp ne audience la bëgg. ñun sax dañoo ruus parce que ñun ay mbër lañ bu ñu sañoon duñu ñu wax ni xam nga société bi lan lañ ñuy wax mbër yi ay nitu intérêt lañ mais nañ ko xeex ñun ñun duñu ay nitu intérêt ñun lu ñu am askan bi moo ñu ko jox mais nag fukki dëgg su fekkee benn fen day toxal day naan fukki fen benn dëgg benn benn fen day yàq fukki fen fukki dëgg tey benn benn fen bu fekkee fukki dëgg day toxal fukki yëpp tey juróomi nit ils sont corrompus peut-être ñoo nekk ci kaw ñun ñëpp ñoo ñoo yor suñu destin tey mbër yi mag yëpp ñoo yor suñu destin seen comportement lañ ñuy moo tax ñu naan mbër yi ay nitu intérêt lañ parce que askan wi musul taxaw ba mbër yi taxaw wax loo xamante ni askan wi dinañ ci gis seen bopp lu dul ànd ak ñi nga xam ne ñoo autorité yi. ministre bi lan la wax nee na ñoom dañ maa demande cinq points Gris Bordeaux feneen luñ ko moom ministre bi la war a porter plainte bu dee tëj day am ñoom ñoo tëjoog ci biir ministre Malick Sall ministère de la justice moo taxaw fen maanaam sax du ma wax moo fen mensonge international la defal. parce que olof dafa diis soo nee fen dañu naan daf ko saaga mais mensonge international mooy dafa dem ba génn bitim réew teg ay tuuma ci suñu lor loolu diffamation lañ koy tuddee ay intoxication la joxe ñun du ñu ay dof kon ñun tey jii dañoo waroon dédommager ci wax ju ñaaw jooju. parce que tey teggi tuuma maanaam fa yow a egg du man eggu fa bu doon ci réew mi la ñu bu boobaa dina neex a dindi waaye daf ñoo waxal bitim réew kii tey mën naa dem suba bëgg amba bëgg dem ambassade bëgg visa. ndax ñun visa ñu yombee am na ñu bëri daf leen a naqari ci société bi visa ni mu am na ñu bëri daf leen naqari ci société ñun ni ñu yàlla def am na ñu bëri ñoo ne leen naqari ndax Balla Gaye avant 2005 kenn xamu ko tey il s'est il s'est parti de rien du tout pour accéder certain niveau social. tey ji Balla Gaye bu muy lu mu am teraanga bi muy am teraanga boobu mi Matar Ba nekkul ministre kon lan moo tax Matar Ba war koo mën a jënd lan moo tax nga am ngay fay ko 80 millions ñu jox la 2 millions jënd sa baat ba bu société bi sa doomu mbër yi société bi sax bu ñu soxlaa dara yow doo mën a taxaw ngay porteur de voix nga waxal sax waa géejawaay mais loolu du am lu dul nag autorité bi nga xam ne moo noot askan bi suy ñëw géejawaay yow lay jox 80 millions wala 50 millions ne la kaa ñu ànd après ñuy xoolee dañ naan ñun suñuy intérêt rek bu ëllëgee gisoo tey lii xew ci làmb dem leen ci commentaire ye ñoo ñaw lañ ñuy wax pourquoi ñun ñu wëlbatiku ba suñu société du ñu wan ginnaaw lan moo ñu ko war a jaral nañu dem ci ginnaaw askan wi ndax askan wi moo ñu def lu ñu doon askan wi suñu amee combat ñoom ñooy daw ñooy sonn xale yooyu topp suñu ginnaaw ay sans emploi lañ xale yu topp ci ginnaaw mbër yi ñu ci ëpp amuñu xëy état joxu leen liggéey il se il se bat de corps et âme pour dundal seen i wayjur kon tey xale yooyu tey mbër yu ndaw yi yi egg ci kaw war nañ leen a mën a waxal au moins war nañu mën a wax pour xale yooyu topp seen ginnaaw kon tey ci tàngul ginnaaw nga moo lakk ministre bi su génnee ne juróomi poñ lañ ma laaj te ñoom nee nañ ministre moo leen woo di leen baalu man ministre bi fuuta la ko waxee benn autorité bu mag moo envoyé vidéo man ci làmb pour confirmer li ma doon wax fuuta la ko waxee mu ne juróomi poñ la ma la ma cinq major cinq major la leen tuddee mooy mbëri fa ñëwoon il m'ont demandé cinq points benn bi mooy ma nekk seen parrain beneen bi mooy ma yóbbu leen ci Macky sàll beneen bi mooy ma ma ma bu ñu amee campagne ma bàyyi leen ñoom ñu accompagner ñu ah, am na beneen point muy juróomi point yoo xam ni tënk na ko ne ñoom moom lañ ko demande mais ñun waxuñ ñu loolu ñu yëkkati fukki million jox leen ko kon ñun fenaluñu kenn vidéo bi tey ku mu bëgg mën nga dem si internet bi nga gis ministre bi wax loolu kon tey dañoo demoon ne dañuy jéggalu ministre bi ger leen ci fukki million te ñoom ñooñu ñëpp ku ci nekk am nga ay quatre-vingts millions yoo xam ne ko nga ko ba tàyyi fukki million tax ñu man waxuma seen xas mais dañ ñoo xasaale ñun ñëpp ndax bu benn mbër fotee dañ naan mbër yëpp ñoo fote kon tey suñu ñëwee injustice yi ba tey di ñëw mooy lan dañ ñoo bëgg a appauvrir wax naa ko léegi dañ ñoo bëgg a pour après ñu daal di ñuy utiliser waaye nag man day injustice lay xeex mbër yi toog fii nii képp ku ci pare pour nekk nervi wala nekk koo xam ne dañ lay utiliser ngay lor sab askan man ànduma ak yow te duma mës a ànd ak yow te doo ci am ndam te doo ci mës a am ndam ndax sama ndey sama baay ci askan wi la bokk ñun waruñu benn intérêt personnel waruñoo tax ñu lor suñuy ndey ak suñuy baay ak suñuy njaboot kon encore une fois encore une fois mbër yi duñu ay dof mbër yi du ñu ay dof il faut que ngeen respecter société bi nañ ñu respecter ñu nit ñu respecter suñu bopp ma ñëw nag ci autorité yi ak décision bi ñu jël làmb ju ñu yàq ci moyen de vingt quatre heures ci jours ji musul am dans l'histoire mais ñu ñun mbëri heure bu ñu musee fauté dañ ñuy sanctionné heure bu ñu musee fauté dañ ñuy sanctionné mu ngi mel ni ci bis boobu rek mbër mu ci tardé woon dañ lay sanctionné waaye mbër mi ngemb ba war a ñëw ñiy déplacé wu ñëw waa léegi ñooñu ku leen di dédommagé pour pourtant ña leen doon kaasal ba ñu tëjoo gouverneur ba ñu génnee dañ leen dañoo ne muut ba tey kenn déggaatul wax ci am na ñu fi tëju barki démb te dañ doon fëgg table ji kon mobile lim naan gars yi dañuy teg dañoo war a tegg intérêt personnel jël intérêt làmb teg ci table ji wax ji ñëw na kon ñu li ñuy wax waxuñu ko ngir bëgg a wax lépp lu ñu wax aju maanaam jallu muus la heure boo waxee fekk ko injustice bi nag mooy lan dafa am benn mbër champion d'Afrique la ñu koy wax Sélé tam dëkk Mbour kase damaa jum Kassé Diop le grand champion tey ci chaise roulante la toog euh, am na benn drapeau chef de l'état deux mille je ne sais mille dix huit la xaw ma deux mille vingt dix neuf ñu defe woon ko mbuur man damaa gis sele ñu teg ko ci chaise roulante di ko wërale stade bi di ko ketal CNG mu ngi ci kaw yow yaa ngi fa woon mag autorité yëpp Matar Ba ma ngi woon man maa dem këf microcentral man ko noonu ne xam ngeen ne lii ñaaw na un champion d'Afrique koo xam ne ñaari licence la am licence simple ak licence d'or mu fay assurance mu gaañu ci biir làmb ndax sekkeen moo ko gaañ sekkeen nduur moo ko gaañ mu def une accident toog un an ci chaise roulante ba tey drapeau chef de l'État ñu financé si ay millions ci dëkk ba mu dëkk ñu ko fay ketal loolu gàcce la waa léegi Valdo ngi nii rek champion d'Afrique la mais pour ma a relancer wu moo tax tey bu ñu nee bépp mbër da ngay ñàkku ay rey daf maa jàpp dama ne ñoom sunu wér-gu-yaram kañ la leen soxal non suñu wér yaram kañ la soxla soxal état du Sénégal kañ la soxal CNG gars wax leen ma ñun suñu wér-gu-yaram kañ la soxal état du Sénégal kañ la soxal CNG ndax ñun dañuy dagg assurance dañ ñuy dagg assurance te bu ñu gaañoo duñ ñu faj benn ngi noonu ci champion d'Afrique boobu ñaata mbër ñoo gaañu ci biir làmb feebar tëdd waxuma la sax mbër yi actif mais ay ancien gloire ñaata ancien gloire ñoo fi dem tey ngir manque d'assistance te waroon na mam benn caisse boo xam ne caisse sociale lay doon day nekk biir CNG mbër yi nga xam ne sax ñoo ngi nekk en activité dañ leen di dagg di ko def ca caisse googu ngir kenn ku nekk ci problème maanaam gérer làmb nekkul lu jafe ndax fu ay fonds di dugg ay fonds di génn rek gérer ko mais ñi ko gérer bëgguñu làmb wegguñu mbër respecté wuñu avenir u mbër avenir u làmb liñ fay duggee mooy ay anciens retraités lañ fa jël indi leen fa pour ñuy am lu ñu yóbbu seen kër fekk nag làmb ji jëruñu ko ci teg ko ci loxo waa làmb ñu teel ko seen bopp ndax mbéjum kanam borom koy fajal boppam lii day continuer di persister kon ñoon duñ ay dof te jegewuñ ay dof kon tey ma ministre bi suñu tasee làmb ci manque de sécurité lañ wax nit ñi il faut qu'on se dise la vérité ñoom dañ sécurité moo amul ban version lañ ñu wax dañ ne sécurité moo tax làmb ji tas waxuñu fenn Covid waxuñu fenn Covid ndax benn décret wàccul benn décret wàccul buy tere rassemblement benn décret wàccul buy tere manifestation kon bi ñuy tas làmb ji dañ ne sécurité moo amoon waaye deux jours après match dañoo dem ñoom ñu def seen rassemblement seen bureau boobu ñu def CNG xam nga lan wax ne waaw léegi mbër yi dañu arrêté làmb ji parce que Covid bee tax ndax mbër bu ci ñàkkuwul doo bëri mais c'est une mensonge insécurité la ñu wax dañ ne GMI amul moo tax làmb Pape Sarr ji yàqu ndamuñu mobile bi. ñu dem deux jours après ñu réunion ñoom ñoo ne ay waxu vaccin waaw waxu vaccin lu ko fi indi lu indi waxu vaccin kon ñun duñu ay cobaye encore une fois suñu wér-gu-yaram mës ta ñor CNG mës ta ñor état du Sénégal mbër mu ci feebar yaay faj sa bopp waxuma la sax mbër sénégalais bu ci feebar yaay yóbbu sa bopp hôpital sa jabar buy wasin soo fayul dañ ko fay bàyyi ba mu faatu yàllaahu ñaata doomu Sénégal ñoo dee ngir manque d' assistance ñaata doomu Sénégal ñoo dee ci ay couloir hôpital ngir manque d' assistance da ngay dem ci hôpitaux yi soo yorul xaalis ñu sànni la ci couloir yi ba nga faatu kon tey état boobu su taxawee ne dafa bëgg ñu wér état boobu su taxawee jël ay vaccin wu milliard am ne da koy testé ci mbëri jël ay vaccin milliard am indi ko ci Sénégal ne def ne daf ñu koy forcer ni vacciné te jamono boobu mbër yaa ngi siburu kenn faju leen mbër yaa ngi njàmbataan kenn faju leen mbër yaa ngi am insuffisance rénale kenn faju leen ñaata mbër lañ fi exporté ay nit sénégalais simple di leen fayal pour ñu dem Europe ñun jalise tey ñooñu ñoo taxaw ne dañ ñuy dëkk pour dañoo bëgg il faut qu'on se respecte defuñu ko waali defuñu ko defuñu ko Sidi Diop defuñu ko benn ñàkk nitu fayda ñu nekk ci Sénégal defuñu ko kenn ñu ne mbër la ñuy defuñu ko football bi ñu ne mbër la ñuy def ay cobaye encore une fois am na politique bu ci nekk. làmb ji nag suñ koy ñun dinañ wàcc ci mbedd askan wi nag lañ doon wax pour ñu dégg ñu ndax boo xëyee xëyee def dañ naan xale yi dañoo yëglu tàggoowuñu kenn nag lii bu changé wul ñun ñoo ëpp ci Sénégal mbëru làmb yu ndaw yi damay wax sax ñu mbër mu ndaw mbër mu ndaw amul. dafa am les lutteurs populaires ak les lutteurs impopulaires ñun ñoo bokk ci lutteurs yi nga xam ne moyen ñoo nekk ci suuf ndax Balla Gaye li daggee licence laa daggee licence daf maa gën a siiw ñu gën koo xam ndax mbër dina maase ak Balla Gaye at Balla Gaye gën koo siiw kooku du mbër mu ndaw mbër mu mag la waaye dañ ko kon yi nga xam ne ñoo moyen populaire ñoo gën a bëri ci Sénégal te ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw te bu fekkee rek wuñu solution lamb ibbi ko ibbi ko lamb mbër yi bëri ñu ñàkk seen alal ci làmb ji ñu subventionné leen encore une fois. ah oui eh ñaanuñu saraxuñu. xale yi doon bëre keroog ñu ñëw ci làmb ji financé seen alal ñu yàq ñooñu dañ leen di delloo seen alal ba pare tegal leen ci nàmpaay loolu dañ koy exiger forcé wuñu ko ñaanuñu ko dañ koy forcé buñ ko deful suñ ko deful duñu bëre ñu te duñu renouveler suñuy licence huit mille et quelques licenciés kenn ku ne ñu forcé la ne da ngay renouveler loolu ñaata milliards la. kon ñun xam nañu état alal ji muy jëlee ci làmb li tax état téye làmb ci loxoom bugg koo jox kenn ñun xam nañ ko li tax muy jël ay nitam di ko teg pour ñuy sucer le le le sang des ñun xam nañ ko kon ñun suñu toogee su wélewul licence ñoom ñooñu kenn ci joxe dépense ay ancien retraité la kon ñun bëri nañ xam fu ñu war fekkee ni lii réglé wuñ ko saison bi buy bee ñu neñ kaay leen bëri ñu ne bëriwuñu il faut ñu nangoo ñàkk dara ngir am dara su fekkee da ngeen dëgmal xeex il faut ngeen nangoo ñàkk dara ngir am dara ndax Thomas Sankara bi muy xeex dafa ñàkk dara ngir am dara Nelson Mandela bi muy xeex apartheid loi la woon ñu bind ko noir sur blanc ne nit ku ñuul moo gën a doye di nit ku weex nit ku weex bu toogee ci kaw nit ku ñuul ci suuf la war a toog ñu bind ko maas ko mu nekk loi ay nit ñoo ko xeex mu deñ soo pour qu'il y innovation bi ma doon wax il faut qu'il révolution seule la lutte libère soo déggee seule la lutte mooy xeex rek mooy may ndam ndax yonent bi bi mu bëggee taxawal l'islam daa taxawal xare Badar asalaamaaleykum wa